lan ngay nuyoo mbi gaañu ñu ko micro gaaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant dellu di waxaat maa ngi gën a sant samay ñaari waajur di ñaan yàlla guddal seen fan di wax na bisu tey bii maanaam du mën ci buggey du soxna ndey caam mi nga xam ba safar commencé moom commencé woon na beñ ak mbiskit ba bis bu toll fii tey bis bu du kenn su ñun bis bu lépp ginnaaw yàlla bi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul kese la ñun tuuti dara dañoo loo ñuy jëf rek li Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul waxoon ne bis bi nañ àndandoo sant la ko yàlla ñun foofu lañ ne foofu kese lañ ne bis bi ñun duñ si dara lépp Cheikh Cheikhul Khadim la ñun dañoo nekk si ginnaaw di ay taalibe rek taalibe nag ndigal rek la xal duwéy lu dul ndigal bu ko doxee rek day daal di juum te bu juumee dañ koy daal di jëpp ba bañee nag juum bañ ku la jëpp day joxee dem bàyyi mais nag lépp du kenn ku dul Cheikhul Cheikhul kese la lépp moom la ñun si dara ñu gis ne mbir mi dafay jëm kanam rek waaw maanaam at mu teg mu gën a yokk waaw loolu itam di wax ne Serigne Touba moom tànk kanam kese la am te wax dëgg yàlla ñun bis bi utuñu si dara li tax muy yokk mooy dañuy rayante bis bi ñun bëgguñu si soutien soxluñu soutien kenn invitation kese lañ ci soxla ndax sa suné bu bis bi jàllee ginnaaw yàllent bi magal lañuy ñuy xirtal màggal gi bu jàllee jamm dañuy dajalewaat ngir ñaan yalla may ñu fekke ak tal déwén ñu fas lepp luñu lu amaat def ko ci bis bi. Mhm. dernier laaj bi may ñëw rek parce que xam naa ne yi bari na euh donc euh, wa koñ bi ñu gis ne ñepp dañoo ubbi seen buntu kër. euh yéene dalal gan yi. lolu aussi ñu né yow yaa leen ko ji. Mhm. wa koñ bi mom manam kenn mënul fay sa dëkkandoo. dëkkandoo tey jii lu ne yunn balaa dem fenn ñoom ñooy njëkkee ñoom la njëkk a gis man awma fay benn yoon si dëkkandoo yi awma seen fay bi si toppaat ci bu famille internationale bi nekk sama biir kër awma seen fay nuyoo bi dama koy teg si loxo soxna Ndey Caam ndaxit it ginnaaw yàlla ak yonent bi soxna Ndey Caam ba mi commencé safar fii beña looloon def ak mbiskit ba yàlla sunu borom a taala dogal ma dem bitim réew ñëw mën see dugal sama loxo ba tey maanaam fii mu toll nii si ay gétt ay nag lépp mu daal di fiy toll mais nag lépp du kenn du man ginnaaw yàlla yonent bi ak suñuy waajur cheikhul xaddim rek la cheikhul xaddim kese la ñun ay taalibe lañ dara ñoruñu lu dul maanaam doon taalibe kese lu nag yi bëri bëri bëri lu giléem yi taxaw taxaw taxaw wallaay wal azim pour ñu defuñu dara dañuy soog a door li si kanam ñaan yàlla sunu borom wa yàlla ma ñu gudd fan wér fekkatal ñu gën a rayante gën a liggéey taalibe boo ko doonee da xal di liggéey rek di ñaan yàlla loo amit def ko mhm. ngir sëñ bi kese bi sëñ bi dafa bokk ci bis yi gën a rëy si mhm. murid mhm. muy 18 safar na leen àndandoo sant la ko yàlla sunu borom te loo mën a def lu sant defoo lu sëñ bi digle loo mën a def lu dul bernde defoo lu sëñ bi digle ñoo ngi santaat Cheikh Cheikh Mountakha Mbacké yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla guddal fanam xalif général kullu Baye Fall yal na yàlla guddal fanam moom la leen ñaanal Mhm. di wax na wax dëgg yàlla alaaji buubu ngom mhm. taxawaayam rafet na lool waaw mhm. maam Thierno taxawaayam rafet na lool xaadim kase taxawaayam rafet na lool buur géwél seen naa ko taxawaayam rafet na lool sama sëfër si biir kër gi ñoom ñëpp seen taxawaay dafa rafet Pape Samb ñoom ñëpp seen dafa rafet parce que li tax am conseil baax fii yaakaar naa ne mbàkka mbàkke dikk na pour seexal ma bete bete ndey mbàkke bay mbake ba mu dikkee di ma ne daf may seexal jox ma ñaar fukki taalibe damaa ko génn woo xaadim kase mii mu ne ma doon ab taalibe mu gën loo mën a gis àdduna ma woo alaaji boobu nga mu ne ma doon ab taalibe moo gën loo mën gis àdduna maam Thierno ma woo ko mu ne ma doon ab taalibe moo gën loo gis àdduna moo gën bi damaa ñëw na bi a ah man de wax dëgg yàlla am naa ngànt سندوكار ميجي نفا فرابي بنتو بدم يوم عند تاربين منك لتاخ لول موي كان سين فال دا فا جيل نجوريل كي جندوك اب طالب نيغي طالب سين فال تي نون طالب رك لا ني دوم دارا نيور ني نك تا دارا في سوني بت والله والعظيم دون طالب رك مو نيو بانك بي ليغي خالص صاح فالو نيو ناخ لتاخ فالو نيو كو مو نيو لين يور نيو كو موم من نكو ماي من نكو سرخ te nekk sa banque ba du ko maye du ko sarax mhm. doon taalibe rek wóor moo wóor waaw waaw nga ñëw ci jàngkat yi ñi ñëw ñi animé guddi gi ñan la waaw li mu doon ñaan yàlla sunu borom wa taala at yi passé ginnaaw yëpp mhm. yàlla di ko jagle li ma wax ne jàmbaar amul ku yàlla dimbali rek a fi ne mais jàmbaar amul de mhm. li ñuy def nii nii lu ma bëri bëri bëri du jàmbaar ku yàlla sunu borom wa taala dimbali rek a fi ne ak yàlla sunu borom wa taala may la xolu joxe ndax joxe yombul mais bu la yàlla may xol bi ba pare wërsëgale loo mën a joxe nga def ko si askan bi mhm. jànkat yu ndoy ñaan yàlla suñu borom yàlla boole ñoog ñoom mhm. mooy xaadim kebe mhm. di xaadim Guèye akasa Samb Cheikh Diom Mbaye Serigne Moustapha Seck si wàllu xiin itam waa kër Cheikh Abdou Aziz Fall ibnu Serigne Modou Moustapha Fall di sama Serigne bi yàlla na yàlla yokk leeram li may ne ñaanu wàlliw day guddee mais nu Moustapha nan àll tey di santaat bu baax rek akasa ñoo ngi koy sant bu baax di ñaan yàlla mu egg jàmm ñoom ñëpp xaadim gi xaadim kebe sat bu sàmb woo nañ ko si bis bi moom itam ki nga xam ne mooy Pape Mboup woo nañ ko si bis bi Ndiogo Afia itam woo nañ ko si bis bi mhm. ñoom ñëpp ñoo bokk ak ñun mais bokk ko ñun comme ni ko Serigne Touba waxee woon rek mhm. àndandoo sant la ko yàlla sunu borom jërëjëf ci buggay kon ñu ngi lay gërëm di sant xam naa yi tey dafa bari ñu bàyyi la rek euh, donc euh, di gërëm di sant bu baax a baax mbokk euh, kon mbokk mu doon rek ki xam ne mooy ci buggay donc nekkoon en direct sur sur donc li nga xam ne mooy Wadis Vision merci beaucoup jërë ngeen jëf kon ñu dem ba ci kanam tuuti incha allah ci li nga xam ne mooy soirée